ci daasu cinquième bi alxadiisu saabi xadiisu juróom ñaareel bi ñuy jàngale xadiisu juróom ñaareel bi ak xadiisu saamin xadiis bi juróom ñetteel bi ñaar yooyu lañuy an abi woqiyaat jële ci bàyyi woqiya waxoon nañ ne awa bi amee doom seen taaw bu njëkk nañu koy dàkkante ne kon moom waqiya doomu bu njëkk waqiya la moo ñu ne ko ana abi waqiya ñu leen ci bàyyi waqiya tamim bin awsi tamim doomu awsi ak yi béykat yu daar yi radiya radiallahu yàlla ko yàlla gërëm anhu ci moom ne jëlee nañ ci baay Waqiya tamit tamit bin Asiddaawi yàlla ko yàlla gëm anna nabiya na ko yonent bi sallallahu dul xewal allahu yàlla alayhi ci moom sallamata musak qaala mu wax moom yonent bi sallallahu din sallam addiinu naka diina ji nasixatun laayi ne diina laay bi la xul naa ñu wax li man ñel ki nga xamante ni xaaral wala kitaab yi ak téeréem wala rasul yi ak wala ammatil muslimina ak euh, ak ak bu jullit ñi wa amatihim ak njiiti jullit ñi wa amatihim ak mboolem jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa ji laay bi la ñel ki nga xam ñel téere bi ak yonenteem ak njiitu jullit ñi ak mboolem jullit ñi ne laay bi yàlla nag mais nga gëm ne yàlla moo nga gëm moom kese mbenn yàlla kese moo am samay yàlla nga gëm ne ah, mboolem bindee fi yàlla leen bind nga te doo ko bokkaale te doo ko bokkaale te doo jaamu beneen yàlla moom nga gëm ne téere bi yàlla moo ko nga gëm naa téere yàlla lu am la yàlla ko wàccee téere bu nekk nga gëm ko waaye nag mu le gëm naa gëm naa eh, téere bu ñu wàccee ci Moussa waaye gëwma téere bu ñu wàccee ci Isa loolu eh, kon gëmoo téere yaa bokk doo gëm téere yëpp benn mu nekk benn wala rasuli yonent nga gëm ne yonent yàlla moo leen yónni waaye yow bu dee ne yow gëm nga ne yonent yàlla moo la yónni waaye gëm naa Moussa waaye wasallam kon ko gëmu yonent yi kon ko gëmu benn yonent sax kon dangaa war gëm yonent yi mboolem yonent nga leen bul gëm kenn di bàyyi kenn nga gëm njiitu jullit ñi njiitu jullit ñi nag ah, ñaari xaal leen mooy ñi nga xamante ni mooy yi ak njiiti àddina ñi te xam-xam yi nañ leen gëm ta respecté leen na gëm ah, mboolem jullit ñi gëm leen ah, te nga yéwam leen waaye bu dee yow gëm nga jullit ñi te dégg leen di métti te lekk ñooy naqade ngay dëkkee mu ne dangaa war a ah, dégg leen a yërëm xadis bi nag waaw solo na ko muslim solo na ko muslim muslim xadis bi nag muslim moo ko solo ñu jàll ci xadisu thamin xadisu thamin xadisu juróom ñetteel xan ibnu omar jële nañ ci baay omar radiyallahu yàlla ko yàlla gërëm anuma ñoom ñaar ma waxee anuma waxee am xumaa yi xamal ne ñaar ay julli lañ moo tax mu ne an abaan ibnu Umar jëlee nañ ci bàyyi Umar kon ba xama kon waxoon moom lañ waxoon ci xadiisu saabe ñu ne la araab ñoom doom bu njëkk am rek noonu lañ leen di dàkkante ne gis bala an abi Ruqayya la an abi an abi Ruqayya bi an ibnu radiyallahu yàlla na ko yàlla gërëm anuma ñoom ñaar anna rasulullahi naka yonent bi yàlla bi salla yàlla doolu xewal allahu yàlla alayhi ci moom wa sallama te doolu ko musal ñi buñ wa nit ñi buñ bu ñu tu yonent bi wa sallam dañ kaa dañaa war a wax sallallahu wa sallam waaye buñ ñu ne Muhammad ñu noppi yonent bi nee na ki nay mooy ki nga xamante ni dégg na sama tur da waxoon sallallahu alayhi kon buñ ne Muhammad rek maa war wax sallallahu alayhi wa wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa nañ ma an uqaatila maa rey ma ren an uqaatila ma xeex yàlla diggal na yonent bi mu xeex nit ñi lu may nag ñu wax xataa seede lu ma ñu wax allah lu may ñu seede an laa ilaha amul benn buur bu ñu jaamu bu dul yàlla yonent bi yàlla diggal nañ ko mu xeexa nit ñi lu may xataa yashhadu lu may ñu amul benn bu ñu jaamu illa allahu ko waxuñ Euh, ñoo ngi seede na amul benn buur bu dul yàlla rek euh, buñ ko waxul rek mu sax dàkk si xeex ñoom wa anna Muhammad ñu seede ne Muhammad wa anna ñu seede yàlla ñu gëm ne Muhammad yonent bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dangaa war a ne yonent bi yàlla ko yónni yàlla ko yónni waaye bu ko weddi wa yuqima salaata nga taxawal julli pare nga teg si ngay julli wa yutu zakata ngay joxe azaka azaka nag nekkul ne danga koy jël di ko jox borom alal waaye ñoom moom borom miskin yaa moom miskin yaa moom waaye nag bu dee ne kon azaka ñu ko war jox mooy ñàkk ñi ak miskin yi ñu ñàkk ñi nag mooy nga xamante ni at bi seen mat gi waaye ñu ñi nga xamante ni mooy ñu am mooy ñi xamante ni ñoom mën nañ am nañ seen dund gi mën na at seen dund gi mën na at kon azaka ooñ ko jox ñi nga xamante ni ñoo ñëw am ne dañ kaa waajur ñi nga xamante ni ñoo ko yeeyoo te muy wala ah, ñu ñàkk ñi faysa faalu defe defee zalika loolu asamu mucc nañ min nii si man dimaahum seen deret wa asama muccal lañ min nii ci man dimaahum seen deret wa amwaaluhum ak seen alal mu ne fekkee ne ñoom nag seede nañ ne ah, amul benn buur bu jaam yàlla ñu seede ne Muhammad yonent yàlla la yàlla ko yónni ñu taxawal julli joxe asaka buñ defee loolu yonent bi nee na muccal nañ muccal nañ si man seen seen deret ak seen alal illaa bi xaqil islaami nu moo ci xaq lislaam wa xisaabuhum seen ab atte nag alallahi wa xisaabuhum seen ab atte alallahi ci kaw yàlla wa xisaabuhum seen wegle alallahi xam na yàlla taala bu kawem ñi nga xamante ni na ñoom ko seen wegle xam na yàlla mu kawem xadis bi ku ko solo mooy Buxaari ak muslim ñaar ñi nga xamante ni xadis yi nag ñaar ñi nga xamante ni ñoo gën a siiw su la ëpp su lu ñu solo xadis mooy buxaari ak muslim ñoom ñaar ñoom ñoo solo ah, ñoom ñaar ñi nga xamante ni gannaaw alquran ak sunna muhammad sallallahu alayhi ñoo fi gën a loolu ci kon li nañ indi ci xadisu ñaari xadis yi إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته